xamante ni ragal nga saay-saay dab la wala ngay dox ci àll ragal jaan matt la wala nga dem ci géej ba ragal ne la nga dugg mën naa diig yooyu yépp boo dee jàng ayatul kursi yàlla mën na la caa muccal mu ne dafa am baat bu am solo ci biir ayatul kursi mu di yaa xayu yaa qayum parce yaa xayu yaa qayum et eh, dafa nekk baat bu am solo ndax wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa xaw a mel ni lu gëdd fatima ci benn ñaan bu mu ko joxoon pour mu koy ñaan fatima xaw koo négligé te ñaan boobu daf ca bokk yaa xayu yaa qayum mu mel ni daf ko xaw a gëdd tuuti ndax yonent bi du gëdd kenn ndax yaram mu ne ko yow fatima xanaa waxuma la woon nga saxoo di jàng ñaan gi mu ne ko del jàng yaa xaju yaa qayuum bi raxmatika astaxiitu fa aslix li sha'ni kullahu wala takinni ila nafsi tarfata ayn mu ne ko dee ko jàng ndax ñaan la gu baax insister pour Fatima di ko jàng nga xam ne nit la muy bëgg yépp doomam moo ko ci gën a jege kon bu demee ba yéene loolu Fatima itam wane na na ñaan la goo xamante ni jox na ko Fatima waaye pour umma islam bi yépp la mu nekk ñaan gu am solo kon ñaan la goo xamante ni moom ayatul kursi yi day xettali nit su fekkente ni dafa nekk ci problème moo tax mu ne itam dana di dimbali nit moom ñaan gi ñu ne ndax képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi ak la mujj ci suuratul baqara ay ya mujj ci suuratul baqara nee na soo ko saxoo di jàng nee na problème bu dugg yàlla mën na la caa dimbali ñu ne itam musluwaay la ndax mën nañ ko sax di ko moccee moom ayatul kursi mën nañ koy moccee surtout ci wàllu mettit ak itam défendre ay musiba yoo xamante ni sa xel dalu ca yépp boo dee jàng ayatul kursi yàlla mën na la caa dimbali wuneetan bokulechin بوكلي ayatul kursi wune képp koo xamante ni dangaa bokk ci ahlu shahwa walmaasi wa arbaabi almakaarih wa ahli ثم يداوم على قراءة آية الكرسي بعدد فصولها أو بعدد كلماتها أو بعدد حروفها فيرجع عما كان فيه ويحول حاله إلى أحسن الحال من كيف كو خمنتني سخونغ دي جنگ آية الكرسي te yàlla dogaloon maanaam fekkoon itam nga nekk kàccoor kàccoor bi nga xamante ni day naan sàngara rek te bàyyi wala benn xeetu mooy ci xeetu mooy yi yaa ngi ko toggoo di ko def ba mu jiital la mënuloo ko bàyyi boo ci bëggee génn sa xol ayatul kursi su ko dee jàng rek léegi nga génn ci bu dee naan léegi nga génn ci bu dee ak càcc léegi nga génn ci bu dee lu bon lu nekk léegi nga génn ci su fekkente ni saxoo nga jàng ayatul kursi te ñu ne itam jàng ayatul kursi baax na trop ndax dana garanti nit ki surtout ci wàllu eh, lu ñuy tuddee rabat jinneeg waaw yu mel noonu dana di faral di garanti yooyu ndax wax nañ ne am na benn waay boo xamante ni dafa ñëw ci benn garab dafa ñëw ci benn garab ñii ne garab gi garabu tàndarma la waaye daal ñëw na ba ci taatu garab gi daldi di dégg daal benn yëngu bu doy waar mu daal wax ne ko la mais kenn faalewu ko kenn waxut ak moom mu daal tiit waaye comme am na kilifa gu ko digaloon ne ko foo tiitatee na nga jàng ayatul kursi yi mu commencé nag jàng ayatul kursi yi naka la jàng ayatul kursi yi rek la nekkoon ca kaw garab ga daal di wàcc ndekk benn punkalum jinne la wàcc rek taxaw ci kanamam mu ne ko moo la wàccee mu ne ko xanaa aaya bi nga jàng lii nga jàng moo tax ma wàcc mënatuma dara fu ñu ko jàngee rek damay perdre mu ne ko waaw mën daal dama la bëgg laaj benn mbir mu ne ko loolu lan la mu ne ko dama lay laaj ndax dama am ku feebar koo xamante ni daal feebar ba jeggi na dayo trop ma bëggoon daal comme yéen ay jinne ngeen te am ngeen xam-xam ngeen wax ma loo xamante ni eh, danaa ko mën a faje ku feebar kooku ndax sama mbokk la te itam wax dëgg yàlla fu ne dugg naa fa pour mu wér mu ne ko del jàng ayatul kursi de ko jàngal nañ ko ko bindal itam mu sangoo ko kon nga xam ne ñoom jinne yi ci seen bopp gis nañ ngëneel lu rëy loo xamante ni mu ngi ci ayatul kursi wax nañ ne ba ci sax wàllu mocc bañ man nga dëñ boo xamante ni mu ngi metti mën nga ko mocce ayatul kursi dañu wax ne daal boo ko dee def da ngay jël sa loxo rek di ko raay ci lex bay metti daal di wax bismillahi rahmani rahim daal di jàng benn aaya ci yaasin mu di awalam yara insanu anna xalaqnaahu min nutfatin fa ida huwa xasimu mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم نجانج آية الكرسي بمجيخ نجانج إتم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم نجانج ايتم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون نجانج ايتم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لولو دنين كدي موشي بن بوخمنتني دفاي متر kon mu mel ni kon ayatul kursi ay ngëneel yu rëy ngi ci ngëneel yoo xamante ni kenn mënu koo takk ñu ne képp koo xamante ni bëgg nga jàng ayatul kursi mën nga jël limu fukk ak juróom-ñaar di ko ko jànge limu fukk ak juróom-ñaar mën nga koy jànge ayatul kursi ñu ne lim la boo xamante ni lim bu am solo la ci ayatul kursi am na benn sëriñ bu nettali nee dafa tukki woon nee na ànd ak benn sëriñam bu ñuy wax Ibrahim Afnadi nee na ci jamonoy sedd nee na mu ngi taw nag neige bi bari nee na itam ngelaw laa ngi bari nee na ñoom ñëpp dañu mujj mënatuñu dara te itam sànku nañu xamatuñu fu ñu jëm réer nañ nee Ibrahim di mi nga xamante ni mooy seen sëriñ ñu àndoon nee na mu digal leen pour ñu jàng ayatul kursi nee na bi ñu àggee ci wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyul azim nee na ñu daal di koy baamtu lu tolloog juróom-ñaar fukki yoon kon lim boobu itam lim bu baax la limu juróom-ñaar fukk mu di limu kun ndax soo déchiffré soo déchiffré kun dafay nekk juróom-ñaar fukk nee ñu delluwaat jàngaat ayatul kursi ba àgg ci wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyul azim nee na ñu baamtuwaat ko juróom-ñaar fukki yoon nee na mu jékki-jékki rek mel ni yàlla dafa tegg taw bi ci seen kaw nee na mu mel ni itam jant bi dafa génn leer nañ nee na ñu ngi seen taw baa ngi taw ci seen wet waaye ñoom tooyuñ nee na mu gindeekuwaat teguwaat ci yoon wi nee na bi ñu demee ba àgg ci dëkk ba nee na waa dëkk ba dañoo jaaxle ndax taw bi ni mu rëyee te ñii gisuñu dara ci seen yaram tooy ak wawaay bi ñu agsee te dañ doon dox loolu jaaxal leen léegi nag sëriñ ba ñu àndaloon wax leen ne leen jox naa leen ndigal ci ayatul kursi yi ngeen koy jàng ndax dana défendre ay bis bu ngeen demee ba di yóotu dara jotu leen ko itam bari leen ngeen di jàng ayatul kursi ñu ne itam di ko jàng ginnaaw julli gu nekk baax na booy jullee suba ba pare nga jàng ko dana la aar ba ba ngay julliwaat suba moo tax jàng ko suba jàng ko ngoon baax na soo dee dugg ci kër jàng ko boo dee tëdd itam na ko jàng soo dee génn itam di dem marché na ko jàng boo dee tukki na nga ko jàng ndax yàlla dana la defal sutura nga tukki ba ñëw te doo accidenté képp koo xamante ni itam e, ragal nga ayu seytaane dee ko jàng ki ragal ayu nit ñi itam na koy jàng ki ragal ayu daaba yi ayu oto yeeg yi lore yépp nay jàng ayatul kursi danañ koy léemoo njaboot bu amee say doom itam di leen ko léemoo di ko tafli ci seen bopp yi di ko tafli ci sa alal itam di ko tafli ci sa biir kër e soo bañee itam sa alal mu sàcc ko wala nga bañ itam dugg ci gaal gu lab gaal gu suux wala nga ragal ni lakk bëgg itam wér gi yaram ci sa bopp bëgg jàmm ci sa biir kër bëgg mucc ci yenn feebar yeeg yenn mettit yi yépp na ngay jàng ayatul kursi yàlla mën na naa dimbali yëpp nga mucc ci ci kàttanu yàlla ak ngëneel bi nga xamante ni ayatul kursi yi am na ko wax nañ ne benn waaye ñëw ne Égypte ak commerçant la woon bu doon jaay tàndarma bi mu ñëwee ba ci kër gi benn kër fekk mu ngi ànd ak benn waay mu laajte ko moom kër gi ñu wax ko boroom mu ne kër gi daal moom dafa bëggoon dëkk fi waa ji nag ne ko kër gi raba fi dëkk ñu fi mës a dëkk ñëpp dañu dee ndax rab yi moo leen rey mu ne ko waaye man boo ma ko joxee danaa fi mën a dëkk mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ah bismillah waaye de li ma la wax wax naa la ko de ñu fi dëkk ñëpp maa moom kër gi waaye ñu fi dëkk ñëpp dañu dee waa ji ne moom daal baax na dañu fi tëdd daal ànd ak yàlla ndeke itam waa ji waa ju yàlla may la yàlla may na ko lool lool lool tabaarakallah waa ji tëdd ba guddi nee na mu jékki-jékki rek nee na gis benn lumière ci biir lëndëm ji nee na mu gis waa joo xamante ni mu ngi ñëw kukk nee na bët yaa ngi takk comme safara nee na ma tiit commencé jàng nag ayatul kursi nee na waaye baat bu ma wax rek mu wax ko ànd ak man su ma nee allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum mu wax nee na ba ma agsi ci wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyul azim nee na mu noppi mënatu ko wax nee ma commencé bamtu baat boobu nee na ma jékki-jékki rek gisatuma ko nee bi ma xëyee suba nag laa gis benn dóom mu mel foofu da doon tàkk na ma gis fa benn dóom nee ci laa dégg nag benn baat bu ne ma rey nga rey nga jinne ju rëy rey nga jinne ju rëy ma ne ko fu ma reyee jinne ak nu ma ko reyee mu ne ma yaa ngi ko reyee ci baatu wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyu al azim mu ne kon ca laa jëlee baat boobu def ko ngànnaay ndax man dama la ma xamoon mooy ayatul kursi yi rek ngay dàq jinne ndeke wala yauduhu xifduhuma sax jinne jutta soo ko dee faral di jàng leen nga rey ko mu mel ni itam kon e, aaya la boo xamante ni aaya bu am solo la ñu ne itam xaraf yi xarafu ayatul kursi yi bëgg nañ nga jàng ko ci lim bi limu xaraf yi wax nañ ne téeméer la ak ñaar euh, téeméer la ak juróom-ñaar fukki xaraf nee na itam ngay jàng ayatul kursi yi ci lim boobu baax na nee na képp koo xam ne yaa ngi koy jàng ci lim boobu nee na daraja joo mënti wut fii ci àdduna itam soo saxoo lim boobu di ko jàng ci ayatul kursi yàlla dana la ko jox su dee wërsëg dana la ko jox su itam ak yaatu ci wàllu taraanga yàlla dana la ko jox su dee itam da nga am bor bu la tëb pour nga fay ko yàlla mën na laa dimbale nga fay bor boobu su dee da nga nekk ci njàqare wala ñu tëj la kaso wala itam nga ragal sa noon rey la nee na soo dee jàng lim bële nee na yàlla mën na la ci defal sutura mu nekk saar bu am solo mu mel ni e, mu nekk aaye bu am solo mu firi ko ndax aaye la boo xamante ni wax dëgg yàlla foo takk solom rek ëpp na ko ndax moom mooy aaye bi nga xamante ni moo gën ci alquran da nga naan huwa allahu huwa moom allahu mooy yàlla laa ilaha amul benn buur illa huwa kudul moom amul benn buur bu dul yàlla alxayu alxayu mooy aji dund ji dund gu amul jeex maanaam dund goo xamante ni dee amu ca moo di alxayu alqayyuum mooy ki nga xamante ni moo taxaw temm ci sirve jaamam yi ci bind leen ak wërsëgal leen ak lépp lu war ci ñoom mu def ko te kenn du ko ci dimbali yàlla kenn dimbaliwu ko ci boppam kenn dimbaliwu ko ci ay jaamam moo tax nit ki di ñuy bañ nga naan yàlla ak diw wala yàlla ak diw boobu dellu ci yàlla ba mu jeex dellu ci yàlla ba mu jeex ndax am na ñoo xam ne seen moytu ci wàllu shirk dana tax yàlla rek lañuy wax waaye kon daal yàlla moo di alxayu mooy ki nga xamante ni dundum amul jeex day continuer ba ilal abad alqayuum mooy ki nga xamante ni bu gisul woon kenn itam daraam du yàqu waaw et le sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne xale bi may jëndali pousse ci kër gi sax bu ma ko kenn xeebal ndax bis bu noppee jëndi pousse bi rek ma wàcc dem jëndi ko kooku tawhid bu am solo la waaye yàlla moom ki koy jënd li pousse bu ko gisatul sax pousse ba fekk si ko waaw ndax bii kamaal la bee di nuqsaan bu dee ci wàllu nit moom ak wàññant la waaye bu dee ci yàlla moom ak mët la yàlla moom amul kenn ku ko mën a xëllamtoo dara waaye nit moom mën nga ko xëllamtoo parce que dara matul mais yàlla lépp ma mat kon moo di alxayu alqayum هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم كن لا تأخذه du ko mën a jàpp mukk sinatun nga mentu naw nawmun nelaw sax moom kenn waxaale wu ko yàlla du gëm du gëmmentu du nelaw nelaw moom kenn waxaale wu ko waaw e yonent yàlla Muusa alayhi salaam dafa weranteeg nitam ñi ñu ne ko e, e, yàlla dégg naa say seen yàlla ji du nelaw loolu mu metti yonent yàlla Muusa yàlla ne ko bu guddee na taxaw di ma jaamu te na nga téye ñaari e, ñaari butéel na ko téye ci li may na ko téye rek taxaw Moussa téye butéel yi téye ko téye ko ba jikki gëmmentu daal di koy roofu mu daal di nelaw butéel ya wadd daal di toj bi mu yeewoo gis butéel yi toj yàlla ne ko nakam mu ne ko ah, butéel yi de toj na mu ne ko gis nga nag su fekkonte ne gëmmentu naa wala may nelaw mu ne kon dañuy yeewu rek fekk asamaan si toj lépp yàqu lépp rajoxo mu ne kon nag liñ ne duma nelaw ak duma gëmmentoog yépp donte dañ koy wax sax ci wàllu yëj dëgg la man duma nelaw duma gëmmentu moo tax aye bi ne laa taaxuduhu sinatun yàlla ak gëmmentu du ko jàpp wala nawmun nelaw moom kenn waxaalewu ko du gëmmentu du nelaw huwa allahu la ilaha illa huwa alhayu alqayum lahu moom moom moom ma fi samawati la nekk ci diggante asamaan yi wa ma fi l ardi ak li nekk ci suuf si yépp yàllaa ko moom amul dara lu ci yàlla bokkaale kenn lu toll ni atom yàlla bokkaale wu ko kenn lu fi nit yor rek yàlla la ko abal day xëy dem benn mu dem wala yow nga dem ba ko fi huwa allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum kon man za alladi yashfau indahu illa bi iznihi man bi su fekkente ne sax istifham la xaw na niroon na fii tuuti waaw amul kenn man za lazi amul kenn koo xamante ni rek yashfau dana mën a rammu ëllëg indahu fa moom illa bi isnihi lu dul ramm googu day jóge ci ndigalam moom yàlla yàlla moo ko moo moom lay soob mu ne la diw rammul ëllëg nag nit ñu baax ñi danañu ramm yeneen yi danañu ramm shuhadaa yi danañu ramm yaalamu moo xam maa bayna aydihim la nekk ci suñu kanam ñu dëtmal ko wa ma xalfahum ak aduna ji ñu bàyyi gannaaw yépp yàlla ko xam wala yuxiituuna bi shay'in min ilmihi te yàlla itam kenn mënul peeg dara dara dara dara ci xam-xamam nit loo xam-xam-xam la nga réere ko ëpp te itam lu sa xër rëy rëy rëy rëy lu soobul yàlla pour nga xam ko doo ko xam kon wala yuxiituuna bi shay'in min ilmihi wasi'a kursiyuhu samawat wal ard te chaise yàlla ba ëpp na asamaanu juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar te kat lu muy rëy rëy yëpp ñu wax ko ci commencement bi yàlla nee na walaa yauduhu tiisu ko xifduhuma pour mu garder leen ba pepp ba cay wadd sax ci lënd mu guddi di dal ci biir ndox mi ci diggu guddi pepp ba la muy tuuti tuuti yàlla xam na ban heure la ca wadd xam na itam fa mu nekk kon walaa yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyul azim mu mel ni mbokk yi loolu mooy ngëneel yu tuuti yoo xamante ni rek wax nañ ko ci ayatul kursi la ca des moo ëpp fuuf mu mel ni nag waxtu wi dafa jeex ñuy gërëm suñu yaay ju baax di soxna Fatou Sylla dëkk ca Sicap Liberté 1 et jot na lettre am jot na itam ay ngërëmam ak kontaanteem ci émission bi nga xamante ni e moo di kalimatul xaq ñu ngi koy gërëm di ko sant yàlla ñu yàlla defal wér ak wér la defal ñu mucc ak mucc la defal ñu mën ak mën la defal ñu dund ak dund la sàmm ñu sàmm itam rajo bi sàmm borom rajo bi seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu aleykum